sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey الذين باعوا billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala sayidi almursalina wattabiin rabbi inni audu bika min hamazati shayatin wa audu bika rabbi an yahdurun assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nuyu mbokk jullit yëpp di fas yéene tàmbali sunu kemt lay kattan ci njàngale téere bi ñuy wax zaadu zawi taxallumi di rabbihim waraaxatal muxallimi muy téereb Sëriñ Tuubaa te Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul bu mu def tuddee téere bi yóbbulu képp kuy aji xam ak képp kuy aji xamlu képp koo xam te ni dangay ngay sàkku xam-xam téere bi ak yóbbal la ci yow képp koo xam te ni it danga toll ci jàngale téere bii ab yóbbal la ci yow yóbbal boo xam te ni ak noflaay la ci yow te dalay jëmale ci sa boroom kon loolu mooy turu téere bi kon ñu fas ko tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim te mooy kàttanu yàlla ak yërmandeem jeexale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi nag mi ngi tàmbali ci téere bi ci bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa iyyaka nasta'in hasbunallahu wa ni'mal wakil mel ni dafa tàmbali ci turu yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kat ne suñu boroom ci yow dong lañuy sàkkoon ndimbal waaye ci yow yow dong lañuy jaamu kon kennal na suñu boroom ci jaamu ko kenn ko ci dimbalikoo ci moom wakiilu ci moom it xam ne suñu borom rek mooy ki nga xamante ni mooy aare kon mi ngi tàmbalee téere bi ci bayit bii mooy xam dan cant li man ñeen na ka nga xamante nii bil xel mi ci xam-xam yux yi lay dundalee xalban xol wayu miit muy rey xalban xol bil jëx li ci ak réer jàlla màgg na moom yàlla suñu borom subhaanahu wa tabaraka wa taala muhyiyan mbir mu muy aji dundale mumiit mbir mu muy aji rey musalliyan mbir mu muy aji julli alal lazi ca ka nga xam te ni xadd ursila yónneef na ko man mbir mu muy aji xamle li kulli man ñeel képp ko xam te ni taxaqalaa xel na muhammadin te mooy muhammad wa alihi ak ñoñoom wa sahbihi ak sahabaam wa kulli zi taxallumin ak bépp boroom xamlu mi ne as bii ci kuréelam ci kuréelam ba kon dafa tàmbalee sant yàlla yàlla mi nga xam te ni moo def xam-xam muy dundal ab xol waaye moom yàlla moo def it ak réer muy rey ab xol yàlla moom moom nga xam ne muy aji màgg ji moom dong mooy dundale waaye moom dong mooy rey may julli ci yonente bi nag yonente bi nga xam ni yow suñu boroom yaa ko yónni def ko muy aji jàngal képp koo xam te ni aji xelu la te moom mooy Muhammad ñaanal ko moom ak waa këram ay saxaabaam waaye ñaan googu it na law ba yëgg ci képp koo xam te ni aju xam na te yàlla rek tax ngir denc ak riir mu ngi lay ñaanal waale moom Muhammad rasulullah sallallahu moomu mooy ki nga xam te ni su ma ko yónni ngir mu jàngal nit ñi gindi leen nit ñi ak jinne yi ba xam ni ñuy jariñoo ci suñu borom subhaanahu wa tabaraka o taala te doo ànd benn lor mu ne hëza jàppal wazali nas mun aw woy la xawaa wow làq na nasihaat ak laabire li kulli man ñeel képp koo xam te ni yejtani bu dana wattandiku alfadiha gàcce nasamtuhu woy naa ko li nasri diinillaahi ngir dimbali diine yàlla ji mubtaxiyan mbir mu muy aji sàkkoo bi ci moom ridal ilaahi ngërëmal yàlla sammaytuhu tuddee naaka zaada zawi taxallim yóbbulu boroomu xam yi li rabbihim jëme leen ci seen boroom wa raaxatal muxallimi te muy noflaay bépp aji jàngale kon mu nee téere bii na xam ne woy wii woy la waxande wu ak laabire la wala ak njariñ la laabéy googu nag mu ngi jëm ci képp koo xam te nii mi ngi sàkku xam-xam ngir wattandiku gàcce ci àdduna ak àllaaxira nee na way wi sag yóbbul la woy wi nag woy naa ko ngir dimbali diine yàlla ji dama ko woy ngir dimbali diine yàlla ji waaye dama ko way tamit ngir sàkku ci moom ngërëmal yàlla suñu borom téere bi nag tuddee naa ko yóbbulu way xam wi jëme leen ci seen borom waaye muy noflaayu tamit képp koo xam nii boroom xam-xam nga di jàngale kon téere bi ñëpp ci mën a jëriñu kiy jàng ak ki ñuy jàngal kon téere la bu am solo jërë bàyyi xel kon sëriñ bi mu ngi mu ngi koy dénk bépp jullit boo xam da ngay jàng wala dangay jàngale mi ngi la ci ñaanal di la xamal ne kat téere bii boo ko toppee di ci jariñu bu dee da ngay jàng di nga ci jariñu bu dee da ngay jàngale dina la yombal sa jàng yow mi jàngale dina la yombal sa jàngale ba nga am ca nam ko bëggee te doo ci kon day mel ni loolu mooy suñu jotaay bi njëkk ci téere bi kon dañuy wàcce suñu kàddu fii di ñaan suñu moom dafa ñu dégg ak topp suñu moom dafa ñu xaadatu daare kon ñu jox dig daje ci beneen jamono insha allah beneen jotaay ci téere bi ñuy jàngale misaal yi rabi taxallumi kon ñu leen di ñaanal di wàcce kàddu yi di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu